gi ba tey ci xalim ak Assane Samb di wax ne li nga xam ne mooy dund gi ñu jënd di ko jox askan wi tardé na ba pare nag maanaam doyul mbir mi ci boppam du loole moo koy daal di lijjanti bàyyi askanu Sénégal ñuy wéy di dox def seeni activité ba pare nag jël seeni matukaay ba tey ci biir journal bi moom taskatu xabaar bi di fa xamle ne bu nu nag fexe ba masque daa di jàppandi ak saabu loole nag ñu si toftalee organiser marché yi ak li nga xam ne mooy bërëbu jaamukaayu yàlla yekk transport bi jàmm ne ñooy waaye bu ñu ko deful ci ay jafe kese maanaam Sénégal mën na see daal di yàgg te loolu nag du mooy solution bi yéen a kaay gii di libération ñu fekk fa Ibrahima Sène mi nga xam ne moo amee woon woppi coronavirus ca Touba marché Ocass nekkoon cas communautaire bi ab civil moom nag xëy na di nettali waa libération li nga xamante ni moom la dund ak jàngoro ji ni nga xamante ni moom la doyee waar daan nay wax sax ne fi mu dëkkoon daan nañ ko fay génne daan nay démissionné ci post bi nga xam ne fa la nekkoon ba tey ci biir bi di las fekk fa njiitu réew mi di président Macky moom nag mu mel ni lu mer na Macky kay waxuma la mer waaye yat wi la génne ci ñi nga xamante ni daal ñoo bañ a wàccoo ak état d'urgence bi moo xam ci wàllum transport wala wàllum commerce wala nag ci wàllum lieu public yi Macky Sall dafa daal di xamle ni ki dëmb daan na képp koo xamante ni daal wàccoowoo ak li nga xamante ni moom lay yoon wax nañu daal di rëq sa ndigg jël ay daan lal ko ci sa ndodd yéen kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal naa ñu mbir mi nag soo moytuwulee dina am sax ñu mu jaaxal ndax démb waa ministère bi ñu dénk wàllum wér gi yaram gi ñoom dañoo wax ne Thiès am na juróom benn lenn ci ay nit yoo xam ne ay cas communautaire la yéen a kaay gi nee ki nga xam ne nag mooy médecin chef bu région bu Thiès moom daf koo daal di weddi ci sensé la ko weddi na Thiès amul benn yoon six cas communautaire waaye nag ñaari cas communautaire la Thiès daal am yéen a kaay gi da la témoin daal di xëy nag ci marché bi nga xamante ne moo jëm ci wàllum ndimbal li nga xam ne jënd nañ ko ngir nag daal di koy séddale askan wi journal bi nag la mu gis mooy Macky Sall dafa daal di favoriser maanaam nag beral loxo ñi nga xam ne ñooy affairiste yi daal di nag du mooyu nga xam ne ñooy industriel yi maanaam ñu si ni Sonacos wala NMA wala Grand Moulin de Dakar yéen kaay gi nee na maanaam wan ginnaaw gii leen Macky Sall wan ginnaaw bañ leen a jox ci marché yi loole nag du signal bu baax ci production locale te nag ki nga xamante ne mooy Idi Thiam bu waa ñu jox ko lu toll ci cinq mille tonnes jëm ci wàllum suukar si ak wàllum diwlin gi te amul kenn koo xamante ni nag maanaam daanakay xam mu yëngatu ca wàll woowu yéen kaay gii de la turbine moom dafa daal di xëy ñëw ci li nga xam ne mooy produit hydroalcoolique yi nga xamante ni bokk na si daal li askan wi di jël ngir aar bopp waaye nag am na ay jafe-jafe ak ay risques yoo xam ne ma ndax am na gel yoo xamante ni waruñu ko jëfandikoo am na ci tamit ni nga xamante ni moom lañ ko war a jëfandikoo yéen gi daan na ci xëy dikk yéen kaay groupe promo consulting bi ñu fekk fa docteur Moussa Thioro di ab spécialiste santé publique la xam xamle nag mooy maanaam tiital gi nga xam ne moom la ñuy tiital askan wi ci ay cas communautaire war ñu ko teg ci suufa ndax cas communautaire maanaam dulu lu bon te nag li nga xamante ni mooy ay mesures yu état bu Sénégal jël amul benn mesure boo xamante ni mesure bu baax la ndax nag mënuñoo nekk ci réew mi bu France jëlee ay mesure rek ñu bëgg koo jël ci réew mi te nag ñi nga xam na ñooy médecins yi maanaam seen rôle du tiital askan wi waaye nag dalal seen xel la ba tey ci l'observateur ñu daal di ko fay fekk moom nag la mu xamle nee na ñi nga xam ne daal ñooy occidentaux yi ñoom nag ñoo bëgg tiital ñi nga xamante ni ñooy askanu Afrique te seen yoon nekkul ci mbir mi ndax moom dafa jàpp ne jamono ji Sénégal sax maanaam occasion la woon ngir nag muy produire lu bare bëri di ko mën a jaay ca bitim réew daan na ci ñëw ba mu yaatu saytu yéen kaay gi di Les Échos mu ñu xamal laa ñu nag avocat yu Senelec ak avocat Akili ñoom nag tey jii daal danañu daal di door seen i négociation jëm ci contrat boobu nga xam ne war nañu ko daal di xoolaat journal bi di Sud Quotidien moom daal dinay wax ne contrat bi am picco ak mbaalo diggante Senelec ak Akili te contrat boobee Makhtar Cissé si fee woon ko moo xaajale nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi yéen kaay gi di Les Échos nee na nag maanaam réeroog gi tangaas gi nga xam ne ak jaxasoo gi am Petrosen maanaam Makhtar Cissé jamono ji ma nga ci yéen a kaay gi mu ñu xamal naan ñu Aliou Ndoye mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum napp gi moom nag daat nay yóbbu yoon yéen a kaay gi de la ba pare nag di ka laaj lu toll ci cinq cent millions stade yéen a kaay mu ñu xamal naan ñu Kalidou Koulibaly jamono ji nag daat nay tere nelaw ay club yu bare bari ca Angleterre ndax nag club bii di Tottenham ak Everton ginnaaw Manchester United ak Newcastle ñi ñëpp dañoo soxla jamono ji Kalidou Koulibaly yéen a kaay gi nee na ki nga xam ne nag mooy José Mourinho moom nag jamono ji mën nañoo wax ne su amul Koulibaly daal du am li mu bëgg club bii di Tottenham